conférence de presse bi daf ñuy fàttali ñun fu ñu jógee baax na député yu mel ni man ñu fàttali leen ne fii la ñu jóge lii moo fi nekkoon avant 24 mars 2024 yow député gii mari Sagna yéen député yéen ñëpp na ngeen gën a góorgóorlu pour saafara lii nu mu gën a gaawee. waaye itam daf koy fàttali ñi nga xam ne ñoo nekk gouvernement bu Sénégal muy ministre yu bees tàkk yoo xam ne seen passation de service ñu ko def semaine bii passée. xam nga kon bu ñu waxee dix mois d'arriérés de salaire waa FERA ñoom ñoo la gën a xam ne dix mois yooyu ba du ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye du ci maanaam premier ministre Ousmane Sonko waa université numérique Cheikh Hamidou Kane ak waa ANPEJ ñoo leen gën a xam ne ñetti weer ñeenti weer yu ñu leen amel du ci du ci président Bassirou Diomaye jaaxaar Faye wala premier ministre Ousmane Sonko waaye daf ñuy fàttali li nga xam ne. moo ñu fal moo tax du ma noppee ñaan ñii ñu fal 24 mars 2024 te man ma bokk ci yàlla na bu ñu fàtte li leen fal te li leen fal mooy coono yii li leen fal mooy jafe-jafe yii li ñu fal mooy nooteel gii te mu war fi jóge léegi nag comme ni ma ko waxee jébbal naa seeni dossier gouvernement bi officiellement ci ay questions écrites gëm naa ne dina saafaraw ci nu mu gën a gaawee dinañ ko topp ci nu mu gën a gaawee yéen itam seen taxawaay noonu la ndaxte ginnaaw 24 mars 2024 gouvernement bi dafa war a xeex waa assemblée nationale xeex xeex ngir saafara seeni jafe-jafe waaye yéen yéen itam bu leen toog dem tëddi nelaw na ngeen ñuy fàttali di ñu fàttali di ñu fàttali yàlla bu fàttali boobu yàgg benn ñaareel bi ñu jël ay dogal. ngir dix mois d'arriéré de salaire fera bu mu amati. trois mois quatre mois bu ñu ko saafaree ba ba noppi plus jamais ça bu mu amati muy ANPEJ muy université numérique Cheikh Hamidou Kane waaye itam état du Sénégal ñun assemblée nationale ñun gouvernement du Sénégal war nañ gëstuwaat contrat de prestataire yi bëri na de te état moo koy def mu mel ni patron yi nga xam ne ñoo moom seen entreprise bu ñu buggee noot seen liggéey kat ñu ne journalier wala intérim. waaye état bu buggee noot liggéeykat bañ ko fay payoor bu mag mu ne ko prestataire xam ngeen état moom amul journalier waaw mu ne prestataire du leneen lu dul ronguñu baadoola muy siim cere buur fekk ne boobu assemblée nationale mu ngi joxe cent mille francs suukaru koor ay député xam naa ne am na ñum dul neex waaye fii laa koy waxaatee cent mille francs suukaru koor député dix députés ça fait un million 160 députés ça fait ñaata 16 millions am déet mais 16 millions 16 millions lu mu mun faj nga multiplier ko par 5 te loolu mooy lu gën a tuuti nga boole ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci assemblée nationale nee na moo lànk kenn du ko contrôler waxuma téléphone yeeg waxuma carburant yeeg waxuma billet màkk yeeg billet rom yi député yi mën nañ góor góorlu ak seen payoor. jëndal seen bopp suukaru koor mën nañ góorgóorlu ak seen payoor demal seen bopp mag demal seen bopp fi nga xam ne mooy rom rawatina jamono joo xam ne d'accord ñu ngi naan dix mois d'arriérés de salaire tey jii nii assemblée nationale dafa waroon réunion ne léegi ginnaaw 24 mars askanu Sénégal dafa ne damay xool yoon bu bees ànd ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko ñun assemblée nationale naka lañuy def pour un recenser jafe-jafe yi. pour deux ñu gëstu ci jafe-jafe yi proposer ay solution jox ko gouvernement indi ko assemblée nationale loolu mooy liggéeyu assemblée nationale waaye jamono jooju askan baa ngi torox askan baa ngi sonn gouvernement baa ngi soog a toog mu ngi xool dossiers yi bëri na les attentes sont immenses yow assemblée nationale ngay joxe suukaru koor cent mille francs yow assemblée nationale ngay naan waaw am naa sañ-sañ joxe motion de censure mais ñun motion de censure bu yittal askan wi du motion de censure contre le premier ministre Ousmane Sonko motion de censure bu yittal askan wi mooy motion de censure contre les dix mois d'arriérés de salaire des travailleurs dix mois d'arriérés de salaire des travailleurs de l'ANPEJ motion de censure contre les trois mois d'arriérés de salaire des travailleurs de l'université numérique euh, Cheikh Hamidou Kane motion de censure contre les licenciements arbitraires et injustes des entreprises comme AGS ñu lii moo ñu yitteel nañu xalaat ci lii nañu débat ci lii et non débat ci motion de censure premier ministre boo xam ne ñu ngi ko soog a fal amagul sax ñaari weer amagul sax ñaari semaine donc di ñaax kon gouvernement bi lu ñu daw xeeb nañ ko xam nañ ne métti na waaye lu ngeen daw xeeb nañ ko lii ñuy sàkku mooy liggéeykatu feeraay balaay tabaski nañu jot seen payoor ndaxte dañoo dem korité te amuñu payoor waa université numérique ak waa ANPEJ balaay balaay tabaski nañu jot seen payoor ndaxte dañoo korité jënduñu soble jënduñu ñu pombiteer te dañoo bugg julli bii di ñëw ñu jënd buum jënd xar jënd soble jënd pombiteer jënd yére ñu julli julli bu décent julli en famille loolu la ñuy ñaan xam nañ ne métti na les attentes sont immenses waaye loolu la ñuy sàkku ci gouvernement bi euh, waaye itam lii day rek wan urgence bi nga xam ne moom la ñu war a changer yenn directeurs yi urgence yi ñu war changer ñi nekk ci bopp FERA urgence ñi ñu war a changer ñi nekk ci bopp UVS urgence yi ñu war a changer ñi bokk ñi nekk ci bopp ANPEJ ndaxte xanaa yow boo amee ginaar sax nga gis ko mu yeewu tey maanaam sawarul di nga ñëw ne ko ginaar lu tax sawaro nañu waxante dëgg kan moo fi am ginaar nga gis ko mu yeewu suba teel mu bokkatu te doo ñëw laaj ko ginaar lu tax ngay bokkati yow ñu dénk ay nit nga nekk ci service su ay nit nekk ci ay nekk ci service su do do dix mois sans salaire quatre mois trois mois sans salaire ñuy kaas seen journalier AGS ñëwoon nemmeeku indi woo ay saafara tuuboo say bàkkaar nga naan da ngay da ngay coupe da ngay tiital ah da ngay dàqe donc y a urgence xam nañ nag ne président Diomaye euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko waxoon nañ ne ñoom buñ leen falee li ñuy def bokk na si yenn directeur yi dañ koy def appel d'offre ngir mu bañ a nekk ay directeurs yaa ma neex dëgg la loolu dégg nañ ko. waaye yenn yi moom nañ ko baral ndaxte feek directeur yooyu soppeekuñu pratique yi day daal di continuer fekk directeur yooyu changé wuñ leen directeur yi fi nekkoon gëmuñu ne ñi ci ëpp bokk dinañ jub dinañ jubal dinañ jubbanti or FERA dafa soxla jub jubal jubbanti ANPEJ dafa soxla jub jubal jubbanti université numérique Cheikh Hamidou Kane dafa soxla jub jubal jubbanti mm-hmm. waaye itam inspection du travail ministère du travail liggéeykat yi ba ci yenn liggéeykat yi nekk ci yenn organe de presse yi man maa leen koy waxal dañoo soxla jub jubal jubbanti ah ndaxte nekk caméraman ñu lay fay soixante quinze mille soixante mille par mois du ñëpp mais du dëgg du yoon noot muy dox day jeex moo tax na ñëpp génnee seen cahier de doléance waaye itam ana syndicat yi ani centrale syndicale yi te ñu ngi jëm ci premier mai fii ak fukki fan fi ak semaine premier mais ana centrale syndicale yi ñuy seetaan ay liggéeykat toog dix mois sans salaire ana centrale syndicale ak syndicat yi yuy seetaan journalier six ans waaye yéen AGS six ans la ñu wax am na ay journalier quinze ans vingt ans samay moromu bàyyi bi ñu commencé liggéey ba léegi ñu ngi waaj a à la retraité dix vingt ans de journalier ngeen foog ne loolu yoon la day jeex rongu ñu baadoole di cimetière buur nga kay def journalier di ko def prestataire di ko jox xawma di ko yekkale ay intérim dafay jeex tey donc lii daal euh, laa amoon euh, li may wax lii moo tax ñu woote conférence de presse bi waa AGS nag ah ñoom ñooy xool nuñ ko bëggee dinañ leen siwal nag ba ñu siw ñun bëgguñu xeex ñii ngeen dàq defuñu dara lu dul ñëw seet ci seen député seeti député nag du délit du crime yéen nag waa AGS yéenay saafara affaire bi ci jàmm ak salaam jëlaat leen ne da ngeen juumoon waxte nit moom day juum ba pare dootuñu nekk ci journalier ba pare duñu dem ci intérim bu fekkee da ngeen di wëy ci dàq bi ak ci intérim rek yooyu dinañ leen defal publicité boo xam ne gratuitement nag laaju ñu leen dërëm ndaxte dinañ ñëw buntu age si jàmm ak salaam dinañ déposer lettre préfecture bu Ndakaaru ndaxte nag lii ngeen def defu leen ko liggéeykat yi assemblée nationale ngeen tooñ ndaxte assemblée nationale du jaaykatu drogue du defkatu faux billet ba ku fa dem. seeti député ñu ne def nga délit def nga crime ñu lay dàq man de duma ko nangu député bu nangu ñu koy seeti pour tiis ko jafe-jafe askan wi ñuy dàq askan woowu yaa xam waaye man duma ma toog seetaan ñuy toroxal assemblée nationale moo tax man bokk naa ci ñu yàqamti ñu woote def ay élection assemblée nationale bi soppeeku ngir ñu am assemblée nationale xar kanam assemblée nationale bu bees tàkk boo xam ne day nekk assemblée nationale askan wi et non assemblée nationale suukaru koor